Sonatel bu mat bu màggal bi euh, jagisee dañuy ñëw def visite fii euh, si ndigalu suñu directeur général Sékou Dramé directeur général Sonatel ñëw nañ fi ren aussi gis sëñ Mountakha Mbacké xalif général di Mourides yàlla na fi yàgg te ak le porte-parole sëñ Bass Abdou Khadre pour rendre leen compte fi ñu toll si liggéey bi liggéey bi nag ñaari pàcc la bi njëkk mooy wàllu réseau yi ñëpp gis ngeen ne màggal bi macha allah nit ñi dañuy gën di takku di gën a bari loolu moo tax jumtuwaay yi dañ ko war di yokk tout temps ren encore yokkaat nañ ko maanaam li defoon daaw multiplier nañ ko par ñeent ci capacité pour joxe benn firnde bu gën a concret fii ci tuubaa yeesal nañ réseau bi yëpp mën nañu wax ne réseau bu yees nañ fi def moo représenté à peu près deux milliards cinq d' loolu yëpp pour yombalal pèlerins yi bu ñu ñëwee mën a euh, communiquer ci conditions yu baax bi ci des mooy toujours ci wàllu technique mais ñu laal ci RSE parce que connexion boo xam ne danga koy am te doo fay dara loolu RSE la maanaam responsabilité sociétale d' entreprise mu nekk politique bu am solo donc wifi yi nga xamante ne. da nga ci mën a connecté te doo fay def nañ ko daanaka si koñ yu bari fii ci Touba ak li ko wër beneen bi mooy journaliste yi ngeen doon par exemple espace presse yi nga xamante ne daf dañ leen ko jagleel connecté nañ ko gratuitement te dañ leen indil aussi ay kit euh, pour pour pour euh, yombalal seen i liggéey si connexion si wàllu RSE aussi Orange Money nga xam ne si groupe Sonatel la bokk dafa def dafa indi woon euh, benn innovation daaw tuddee ko. waañu daara ren aussi macha allah indiwaat nañ ko di joxe donc ay berndeel si koñ bi.